mais bu ñu dikkaatee tuuti ci Jules Baldé euh, ku nekk xam ne Ama euh, bëri na fi ay combat yu am solo mais gëj a bëri Ama lan la lu ko waral. waaw xam nga lamb moom dafa tëradi tëradi boo xam ne comprendre ñi si kaw bu nu nangul may loxo te dañ lay may loxo ba egg si foofu ñoom bu nu mayoon nangul may loxo kon kon Ama day day semé waaw. parce que dañu gis Ama depuis mu daan Papa Sow ba léegi wàccaatul ci aram bi te Ama ku ne xam ne mbërum gox la mbërum penc la bu jógee mbooloo day jóg te mbërum mel ne Ama jaaduwul muy année blanche te année blanche di bëgg a bari ñaar ba ñetti at donc dafa jaaxal ñu bëri te ñu gis ni aussi Ama dafa ciblé benn mbër kese donc pourquoi Ama ciblé Modou Lo kese ci biir làmb ji lu tax non ah na zible benn mbër non non non du loolu ndax ñu ni mu bëriwul war a bëre ñoom war a bëre murlu war a bëre bamba ji war a bëre giri boora mosu bëre ñooñ waaw lamb ji xam ma lamb ji sax nga bo egg ci kaw gars bañ doo egg ci kaw kon kan lay kañ kañ lay doon kan du la may sens waaw kon léegi mënoo nekk yow ñi nga bëri ngay bëri laaj di bëri ñoo xam ne yow nga bëgg a toore di may sens. Mhm. lu jaax la lu jaax la du ñu wool lu jaax la lu tëj nit ñi rek ñu wool la. xam nga tolluwul foofu na. mais buñ dikkaatee euh, ba ci démb dañ fi am benn information boo xam dégg nañ ko ci diggante am ak tafaate ñu ne am na promoteur bu koy dox. Euh, ñu ca ñu demaat ay ñaar ñett fan am leneen lu ci déggaat naka la demee parce que ndorteel gi lan la ak kan moo ko doon dox ban promoteur la ak fan ngeen fixé woon seen waxtaan yi. waaw foofu moom moom promoteur bi nga koy laaj promoteur bi moom moo doon tëgg combat moom nga ko laaj mooy Pape de Fall moom moom waaw moom koy laaj moo ko posé question moom dina la wax lépp lu ci nekk rek waaw mais parce que dafa am loo xam dañ ko for ci yooyu ni euh, combat bi taxaw na ñu xëyaat liir bi ñu ne combat bi taxawul ñu ne ah, Jules Balde moo doon dem di jëli ci avance ñu wax ni Ama Balde moo ko woo ne ko bu jëli avance bi loolu naka nga ko mën pour leeral Sénégalais yi ndax coow li bari na non loolu yoo xam ne am ma yoo xam ne duma ci xëy na monko la moom moo xam moom mënul nekk monko du topp si benn situation boo xam ne di may di may loxo rek di may loxo comme na xam naa mu toog loolu xool xool loolu xolam bon rek mën a mën bu jëlee avance bi loolu loolu lamb bu nekk lamb moom dafa garaaw mais Ama Baldé moo ne la bul jëli avance wala staff bi ñoo woote waxtaan ne bu jëli avance xam nga situation yooyu xam nga rek bu ma si dugg carrément carrément da dugg di toj tojaan quoi ne bàyyi noonu rek alors dama wax lay promoteur bi rek wala gën a leer. gën a leer waaw. mais euh, euh, euh, Mbaye Ndewane yaakaar naa ne xam nañ ko ci làmb mooy entraîneur Tapha Tine du xam nga ko baax. Mbaye Ndewane xam naa ko mais gis nañ ko dafa génn ci journal bi yàq lu mel na xeme Ama Baldé nee na ku bëri mbooloo waaye tapet la lan ngay tontu ci loolu. non Mbaye Ndewane xam nga moom li ma ko li ma li ma ko li ñu ko daan moo moo ko met ñu bëgg ñu bëgg xalaat ñoom dañuy fay waa teew la te buum ba tey mu ngi si mboy mboy ba rek barke Serigne Touba Mbaye Ndewane xam na lu ma ko wax baax moom xam na bu dégg loo xam na bu baax ne buum mu ngi si mboy mboy ñaari bëre ñoo bokkul mais est-ce que li mu wax du du mujj nekk dëgg parce que ah, euh, Jules Balde mi ngi jëli avance ama ah, woo na ko nee na ko buy jëli est-ce que amul lu muy moytu déggoolu mu lax Tapha Tine moom xam na boppam xiir bi na ko. moom xam na boppam xam na moom xam na li muy sentir. tool bu mu yaakaar ni loolu yaakaar ni nangam sang boo jàppee booy bi nag mënulul booy bi dara barke Serigne Touba. kon la moo tax ngeen moytu combat bi. du ko du ko soog moytu. ah mais am na suñu bët feneen ko teg. mënuñ nekk Tapha Tine di ko may sens rek Tapha Tine mënul pousse mënul passe. di comprendre kon lamb moom si yëgal pression boo xam ne naan étape lañ suñu baay jurul kuy ragal <laughs> bu ragal duñ jël Tapha Tine. Uh-huh. mais est-ce que Ama Baldé am na droit ne la Jules bul jëli avance Ama. waaw loolu faute la erreur def na dafa def erreur am na quoi. Mm-hmm. erreur am quoi àdduna loo gis tey am erreur. jumte ngay juum ne carrément ah li bul def ne pare nga juum. Mm-hmm. waaw loolu la lamb lamb moom dafa traité quoi. mais est-ce que yow mënoo dem fokkati avance ñëw ne Ama fokkati ko ne ko kaay bëri ji yow amoo droit boobu ci Ama. non am naa droit looloo si Ama. waa ne dafa am loo xam ne combat. Mm-hmm. comme combat yoo xam ne comprendre moo gën a neex Ama Gris Bordeaux. ama Bombardier mooy combat yu gën a ne am na fu ñu jaaroon ba pare nga nax ko daan ko comprendre am na fu ñu jaaroon moo demee ba sës ba sës mu ko jëlee ma koy naxaat daan ko waaye nag comprendre moo xam naa bëgg a bëri ñu Bombardier lam moo xam si kawam mais xam nga boobu la ñu fi dégg combat yi Abass génn fi nee na ama bokkul ci suñu plan ne Amadou bëri Gris Bordeaux ndax bokk ci suñu plan Bombardier tamit doon na fi waxi Ama mais dëggatuñ ko mais Tapha Tine mi taxaw euh, par pour bëri yow te Ama mi ngi jóge ci ñaari année balance mais est ce que doon neex nga bëriwaat ak moom bu fekkente ni laaj na nga corriger nga corriger bu fekkente ni leneen xew tamit ñu xam mais de toute façon est ce que Ama waroon a jël combat bi bëri ko ngir bëgg ci ay supporters ndax gëj naa wàcc ci terrain bi. lan moo tax jour yi di def di def protéger protéger. protéger pour bañ a blessé. pour bañ a blessé. Uh-huh. wala am mënul nekk chaque jour rek moom. protéger la quoi chaque jour am nag da ko war a may chance ba mbëjee ponkali wangmbëjee benn booy daanu ko dañ ko may ñu jël suñ chance daan ko ngir boo doom mii Fass dugg nañ ko raatale Fass moom dañ ko raatale ngiree fa des mhm. xëy na xëy na day bañ ñu boole ko si lim bi rek lool loolu Abbas Ndoye daw de xam ne day bokk si lim bi encore ah, Abbas Ndoye day moytu Ama Baldé daan Gris Bordeaux